andu siani lunga kono jebo diari nyai wallahi no so dali na boy ko ko binana at least fo ye sarul kamana nyam tiol boy ko gal mamu imodale bari yala mi no la kul yada bul no ba bu ba sen den karamul ka yale alla jang dimas lu ba da ka kele wala video yala la kul bandi ka sonde video ye la fa fa kamu sonde video la fa la fa kata sonde video hai hai, kana wori wala way ni bida sun de bi jalan after si bay be fengale la you know ni sama do ma de ngamin ka be la fay de comme hanga ala ne la fando gel ko la fa comme kata bi do la to wala ñu ngamoy le kala jam ko mo dindu wala yow la lof la lof yow la nu kanu buldega buldega ban doge soto la doge ba wa fo da ci jaban kata on de de ala nyami sen ha ndamaamen ko mbamuruno kombole eh, oh, oh, ah, bi jana to ɗum fon oboɗo ndamaamen mbamuru naji ela kuwol kombole diyata dogel a nima lef ka muru dogel bijande de doge dool fon bije nini nini ngal fengeta yino eta murno paramos doge dool bijam boy wonmu tawwe soldi boy ani yini wal yalañogu ita fenken wala ela da dool e fengol soko kata oɓɓe fo tala jele la wulde ka wulde ka fo ay ñokan jandam mo ko ñokan ko ñokan janjan ya pelan tim be to la la fen ni ni na eh mos ka ko ni ne tam mo le ka ko ni on touchable ñim doge mo bi jena ban doge ko ni ne on touchable ko doge mo ko ha ñim da do sa tv ko mo tam la télé sa tv no mo ye ki bo ñim doge Hey, but that is, near seven you know, and they cannot do the girl that just so that you get man, you know. Huh? Hah? Go Dehad. Dehad. Dehad. had. The one didn't toss again, they had. Say, if I'm a bit of a fan, Yo, they won't want to

boy, now bang, kana duduk problem apa na boy? Ni na dat over corrupt tale boy. Tu corrupt na boy. Now bang, now boy, problem apa na boy? Boy, boy, di ba duduk dia macam? Boy, boy, okay sah. Kion, hamu bapak angkar. Bapak ni aku di hamu kan. They, they come ñoona ñoona ñoona waat pour pour wax la man dama la gis rek ma mun a man dafa la gis rek ma mun a. xam nga yow la woon xam nga sa bopp xamuloo sa bopp kay daf la ragal yow xamuloo sa bopp rek. yow nga ma si kaw si suuf xam ne man dinaa ànd ak yow. man gis na yow yow mi ngi rek man gis na rek man xam na la yow xam wax man. olof lay waaw dafa dégg trop bu baax.

ita mo daw ni Mike expect itu daw ita po na ko kiya right malawa yo man man dem yun dem ka jos makir ngawal ay ah ki ki sa pa ha kau naman daw ay ha si ko yo ki ki na mo sila mo man man si mangi Wow, okay. Munyo siyo, Yo, kika gis nga bukaw. Wow, okay. Ha? Nanya na dyan nga kam. Hangalo, gano'n smoking. Maganda. Mas, gano'n ma daa fi dafay wax dafa ma nopp ma mu génn kii. ay kii la soo génnee lu mu yee. man génnut. dafay génn kii bi ah. man xam kii. génn sol génn sol. yàlla moom itay moo doon yàlla moom moo doon ñëwoon Mbula yaa bee. ay man ne yaa man ne fatal na man ne yaa. nee na yaa doomu man ne yaa. man ne yaa fatal naa la ñu ne yaa. fii fii man daa fi fii man daa fi i ma ngi gën a say sinon yoo yoo kenn moo jëse. man daa man daa fi man daa fi la. ah yaa ngi ko wax yaa ngi ko wax run, run, run, run, run. run.